sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara si Abdul Ahad yéen waa daayiratu bii nga xam ne yéen a yor wàllu liggéeyub Serigne Touba bii ci jumaa ji ci ndigalul Serigne Cheikh Oumy Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadal nee na mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax di ñaan ci barkeb Serigne Touba liggéey bi ngeen di liggéeyal yàlla ak yonent bi ak Serigne tubaa ngeen daje cee ngërëmam ñu ngeen ko bëggee di sant yàlla bu baax ci teewaay gi nga xam ne teewaat nañ ko feren te at mu jot ñu koy ànd ak yéen ci ndigalu Serigne bi muy feeñeel yéenam ci liggéey bi di xéewal gi mu fi indi woon te Serigne tubaa rek tax kon nee na mi ngi leen ci nuyu di leen sant. ci boole gi ngeen ko ci boole woon nga xam ne ba ngeen àndee di jëli ndigal la ci sëriñ Saliou moom ngeen àndaloon ba sëriñ bi jox leen ci ndigal boobaak léegi nag ngeen ànd ci lu ngeen nekk yéen a ngi ko koy wax moom it lu mu nekk mi ngi leen koy wax kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla mottali yéene yi te nangu liggéey bi ci barkab sëriñ Tuubaa ñu fekk ko at yu bare bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mamadou Lamine ñi ngi lay delloo nuyoo lu bari ci turu daairatu muqaddamatul xidma di la delloo ziyaara bu baax itam di nuyu ak a ziyaara euh, sunu kilifa sunu sëriñ di sunu jawriñ sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne liggéey bi tey ab liggéeyam la ndax keroog ba Cheikh Salihu Mbacke radiallahu anhu di joxe ndigal li ci loxoom la ko tegoon moo àndoon ñun dem. lañ doon wax moo ko wax sëriñ bi la sëriñ bi tontu moom la ko tontu woon itam booba ba léegi itam nag at mu jot mu ci gën a taxaw di ci gën a jàpp ci gën a soññee comme xam ne bu la soññee nga jëf ci mu soññ la comme xam ne bu ca waxtaan ak yow nga def ci sa sa alal mu waxtaan ci ak yow am yi ci yéene lool waxtu wu nekk itam muy bége ndigal loolu bàyyi ko woon ci doomi Serigne Touba jaar ci loxoom jëm ci taalibe Serigne Touba yi kon nag su defee nii mu def tey jii te yàgg koo def lool yabal fi rakkam di Cheikh Mouhamadul Amin Mbacke mi mu andi ko duñu mën a def lu may delloo ko ay cant delloo ko ay ngërëm ñaanal ko suñu borom itam mu gën fay yàgg lool te gën a wér te di ko wax ne ndigalam la moom ñu ngi nii rek gis nañu itam ne ba ko sëriñ bi digalee ba nega ni nam ni mu ci taxawee waaye mook rakkam ñam ko àndaloon itam taxawaay boobee rek lañ ci am ñoom ñëpp ñe bokki taalibe yi nga xam ne itam ñoom lañ ci woowoon ñu wuy si leen it taxawaay ngi ba négri si kon leen sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax nag Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xam ne at mu jot euh, lii nga xam ne moom la fi Serigne Cheikh di indi ci loxoom la koy jaarale te su ñëwee moom ci boppam itam day joxewaale addiyee boppam lool itam lu lu mat a xam la euh, ndax loolu day wane cawarte gu am moom itam ci liggéey bi doon Serigne Cheikh yónni wu ko fi rek doon kilifaam mu ñëw ngir ne da koo yónni rek doon kilifaam waaye dafa sawar ci liggéey bi am ci yéen ju toll ji ci Serigne Cheikh am kon Serigne Mouhamadou Lamine ñu ngi lay sant bu baax gërëm tey ñaan yàgg ko andi yàgg nu fee fekk nu yàgg koo liggéeyal Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa yàgg koo nangu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.